Amadou Une, une compétition ouverte. Or, pour moi, le président, s'il reste en politique, nous nous, nous allions. S'il n'est pas, en politique, s'il n'est politique, s'il n'est pas politique, il faut qu'il trouve, avec Amadou Ba, une formule, une formule pour arrêter le leadership du parti politique. mu trouvé ko avec Amadou Ba avec Amadou Ba parce que Amadou quand même c'est notre candidat à l'élection présidentielle il a capitalisé un peu plus de c'est quelqu'un qui peut qui qui peut. donc décider de l'avenir du parti sans lui. ce serait bien qu'on qu'on qu'on le fasse euh, avec lui pourquoi parce que aujourd'hui fi ñu jëm ni on va aller vers des législatives certainement s'il y a des solutions suñu ci demee tasaaroo on n'a pas de chance de compter d'avoir du poids dans la ci future assemblée nationale bi en revanche suñu àndee nekk benn say. nekk benn bloc on peut compter on peut avoir du poids. mun ngeen balancer mun ngeen contre euh, l' actuel euh, l' actuel régime si vous y en en rang uni. su ñëpp demaat ñu jël Benno Bokk Yaakaar bi yëpp. bi fi hmm. nekkoon ànd waxuma nag ñi jaar fii ñi jaar fële déedéet mais Benno Bokk Yaakaar bi ñu ñëpp ñu ànd ba pare ouvrir aussi. les négociations parce que il faut nga boole ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi ci jeu politique bi ñi nekkoon candidat à l' présidentielle ak ñoo xamante ne. ngeen waxtaanaat waxtaanaat. législative moom ànd moo leen ci génne soo leen demee tas moom li ngeen di am bari de. mais wax bi dafa wër parti bi léegi wër opinion bi wax bi mooy ne le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba a été trahi. il a été trahi au sein parti euh, candidat ki ko mu nekk candidat muy président Macky Sall taxawu ko jàppalewu ko dafa sax dooleel ay adversaire am bon lan mën a wax li ma ci mën wax mooy benn jàppalewuñu ko comme ni ñu ko waroon jàppale d'accord naa ci duma wax nag ne xeex nañ ko trair nañ ko c'est trop fort parce que quand man nekkoon naa directeur de cabinet gis naa quand même effort yi mu doon def di ci pour quand même euh, ñu garder pouvoir bi. def na ay effort. def na ci ay effort Macky Sall su sañoon quand même Amadou Ba mooy nekk président de. mais c'est pas c'est mais, pas le sentiment le le, le plus partagé. non hein? il y a eu des problèmes yoo xamante ni ni mu waroon investir investir ko parce que xam nga may mun nga bañ ma jàppale ni ma ko xaaree ci yow ak nga xeex ma bokkul attention. ma ne may mën a fay de xam naa ne man dina ma jàppale bu baax fi ma jëm nii ñu dem ma gis jàppale woo ma ne ma la nga jàppale su ma leen sa ñëwal nga jàppale ma ci bitim nga ne ma noonu du ma ñëw mais du wax ne xeex nga ma dama naan jàppale woo ma. mais xeex est-ce que c'est pas plus ce que j'en laay wax. Mm-hmm. ce que j'en mooy un moment am na ay problème entre. président Macky Sall ak kandidaa bi Amadou Ba qui ont fekk président ni mu waroon déployé woo ak ni ñu xaare woon soutien demewul noonu pour des raisons qui lui son propres mais man mënuma jàpp daf ko xeex daf ko combattre ma ko mais lenn moom wóor na ma ne def na ko. te mënoo jàpp ne dafa dooleel ay adversaires. non benn mooy jàppale euh, jàppale wu ko comme ni ñu buggoon mu jàppale ko. loolu moom quand même ku nekk nag ak sa bàmmeel da ngay wax dëgg gëm naa ne ay adversaire am. yombal na leen affaire yi du ma wax tam foofu ne jàppale na leen mais yombal na leen ko. yombal na leen ko comment. mais waxtaan naa ak génn na leen en pleine campagne en pleine campagne génn na leen ñu génn sa a créé un événement politique loolu donc loolu mun naa wax ne yombal na leen ko. jox na leen ay moyens. moyens yi oma ci preuve mais jàppale na mais yombal na leen ko te contexte bi aussi justifié woon na ko. amnistie bi négociation bi moom tam bëggoon na jàmm bëggoon na réussir sortie am ah, bëggul woon dem dëkk bi jaxasoo bëggul woon dem bàyyi leen kaso ak yooyu donc tu donc loolu def na ko donc pour récapituler waaw man jàpp naa ne mënoon na gën a jàppale Amadou Ba loolu moom waxtaan wax dëgg ca la mais du wax ne combattre na ko deuxièmement du ma wax ne ñële jox na leen nguur gi transfert de pouvoir mais yombalal na leen ko parce que peut-être que su leen garde woon bañoo a négocier ak ñoom et cetera du yomb comme ni mu yombee nii loolu moom mën nañ ko jàpp. mais euh, nga ne am na ay problème hmm. problème yi lan la. non problème yi je pense que bon xam nga problème yi aussi mënu xam lépp. lan nga ci xam ni yow. mais am na ay problèmes yoo xam ne c'est des problème politiques am na problème yoo xam ne c'est des problèmes personnels. comme les problèmes personnels loolu xamuñu ko ñoom ñoo ko séq. Hmm. waaw suñu demee ba peut-être euh, ñu déggoo woon déggootuñu ko peut-être que am na loo xam ne seq nañ ko te ñun xamuñu ko en tout cas man xawuma ko. problème politique yi lan la. non problème politique yi man jàpp naa ne parce que un moment président demoon na ba jàpp ne que Amadou Ba peut-être que c'était pas le meilleur candidat. ah bon ban moment. moment bi nga xamante ni euh, jóge nañu conseil constitutionnel. bi conseil constitutionnel euh, joxe résultat yi voilà. président dafa jàpp ne Amadou Ba c'était pas le meilleur candidat. exact ci configuration boobu parce que président li mu li mu li mu njëkkoon jàpp. dem nañu candidature Amadou Ba day jàll candidature Karim Wade jàll ñi nga xamante ne dañ nekk prison seen candidature warul jàll. ah loolu la jàppoon. loolu la jàppoon bon quand il y a eu le changement bon moom tamit il a des éléments d'information ces éléments d'information yu mu amoon mu jàpp ne que Amadou n'était peut le fait aussi ñu écarter le Karim candidat Karim de façon inattendue ça aussi je sais que ça lui a pas loolu moom neexu ko on l'impute à Amadou Ba à tort ou à raison xaw ndax dëgg la xaw ndax mu dëgg mais loolu je sais que naxari woon na ko. mais amoo benn indice ci accusation yi ñu doon euh, teg ci ndodd Amadou Ba concernant la la candidature de de Karim Wade. non amu élément vraiment gars wax nañu ne bon moom moo xeex candidature Karim Wade mais man gëwuma ko. parce que xawma moom ban intérêt la am xeex candidature Karim Wade bon depuis la favoriser la candidature de Diomaye je pas ban intérêt la amoon favoriser candidature Diomaye donc yooyu ay wax la rek yoo xamante ni parce que man aussi loo xamante ni oma ci firnde tegu ma ci sama bët du ko gëm mais je sais que un moment voilà ça ne s'est pas comme ça devrait se passer entre le candidat et notre patron politique. mais bi ñu génnee liste yi Bassirou Diomaye Faye waa nguur gi jàppoon nañu ne ak bu yu bari ne Amadou Ba benn voyage la koy def bi ñu génnee liste yi Bassirou Diomaye fay jàll Karim Wade jàll Amadou Ba jàll ak ñeneen ñi euh, ci yan argument la joxe pour montrer que euh, Amadou Ba n'était pas le bon candidat ci moment boobu. non le loolu bi mu bi problème bi amee di wax problème ci candidature yi problème yi ak yi mu yooyu moom foofu laa commencé woon sànq moom li mu bëggoon mooy ñu annulé lépp reprendre processus électoral bi en étant très inclusif nag ñëpp bokk ci. Macky Sall son dernier combat son dernier combat politique <clears throat> c'était le report des élections pour des élections inclusives dernier combat politique am loolu la woon Amadou Ba bokk su buggee ñoom John bokk ñoom Sonko bokk Karim Wade bokk ñëpp bokk am na sa ñu ko yow tam nga bokkaale mun leen mën a intéressé ne m'intéresse pas mais dama bëgg ñëpp bokk c'est ça qu'il voulait donc il n'a pas réussi parce que le conseil constitutionnel. benn programme problème politique jàppoon na ne Amadou Ba n'était pas le bon candidat. dans la configuration. waaw beneen yeneen problème politique yi lan la woon. bon yeneen problème politique je sais pas je crois aussi que je crois fondamentalement quand même. gën a gars wax daal ñëpp soxor baaxul su ñu leen ko moom ma ko qui qui a choisi Amadou Ba c'est le président qui l'a choisi et il a imposé aux gens. mais euh, voilà un moment gis na ne que le choix pose problème qu'il y a une bonne partie de sa famille politique qui refuse et cetera et cetera bon Amadou aussi euh, il faut dire que euh, moom il a été très résilient parce que man li problème yi bëri yëpp ak li problème yu métti yëpp gis naa ne il a gardé sa sérénité musul waye musul ñàkk teggin Macky Sall musu ko manquer de respect les gens lui disaient même prends ton autonomie bàyyi ko et cetera mais il est resté fidèle à Macky man musuma waxtaan ak moom ba mu yëkkati lu ñaaw teg ko ci loolu ah Macky Sall déedéet il était correct il faisait tout pour garder le contact avec le président tout tout tout il l'a fait il a été résilient et sur ce plan d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je trouve que c'est un homme serein c'est un homme calme gaawul mer te mun na muñ te loolu baax na ci leadership politique maanaam moi je leur ai suggéré de rester dans l'affaire de rester dans benn bokk yaakaar. yow loolu nga jàpp ne warul warul dem créer parce que en politique les aventures individuelles c' est bien parfois mais c' difficile parce que tu pars toujours avec une seule. avec mais est ce une, que partie mhm. ce que euh, des ak Macky Sall c' est c' est c' est c' est possible. et connaissant le président Macky Sall aussi xam naa ne c' est un homme qui est ouvert Macky Sall il a deux qualités il est pragmatique. lui, ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Et donc, les situations peuvent l'amener à prendre des décisions qui vont dans le sens notamment de l'intérêt général ou dans le sens de sa famille politique. mais yow mi nekkoon et de cabinet bi nga gisee problème yi lan ngeen ci jéem. mais jéem nañ ci li ñu mun yëpp loo xam ne vraiment mënuñu ko wax fii. mais jéem nañ ci li ñu mun yëpp ah pour rapprocher euh, pour euh, rapprocher arrondir les angles voilà on a fait ce qu'on a pu ah Il y a des gens qui ont, tout fait pour les rapprocher, etc. il faut quand même dire que même s'il n'y a pas eu euh, tout l'investissement politique qu'on attendait euh, du grand chef politique Macky parce qu'il a, il quand même de la ressource politique qui aurait pu mm. peut-être peser sur la balance. Mais il n'y a jamais eu de rupture quand même. Ils se parlaient au téléphone, euh, se voyaient quand c'était possible, il n'y a jamais eu de rupture.